asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu topp ci Dakar live maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar mbégte saa su nekk jàkkaarlu bi yéen comme ni ñu koy defee rek saa su ne euh, xam ngeen ni bu actualité amee dañuy daal di dem seeti délégué Amar waxtaan ci ak moom tey nag li ñu war a waxtaanee bari na euh, ndax gis ngeen soirée bi nga xam ne Wally sekk daal dina koy tëgg ca diwaanu Vok gis nañu euh, ki nga xam ne moo waraloon coow li muy njàpp daal di fay delluwaat ñu daal di koy may nag xaalis bu bari loolu lépp nañ ci waxtaan waaye tamit kàddu yi nga xam ne Youssou Dieng daal dina koy yëkkati ak ki nga xam ne moom mooy Wally Seck Euh, ginnaaw bi mu yëkkati ay kàddu wax ni rek moom mooy bàyyi di Diop di bàyyi njàpp loolu lépp ñu fas yéene ko décortiquer euh, dañu koy daal di bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu door suñu waxtaan alors délégué maa ngi lay nuyu bu baax a baax mbégte la euh, feggoog yow jotaay ci Dakar Live. maa ngi lay di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi mun Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko ba yi mu am ci yoonu Cheikhul Khadim mu mottali ko moom lañ koy ñaanalee këru tarixi diine yëpp di nuy waa senegal di siyaare ñëpp. di baalu àq ñëpp te di leen baal àq. Mhm. di nuyu waa groupe Dakar live yëpp. alors dañu koy dooree rek kàddu yi nga xam ne Wally Seck jotoon na koo yëkkati ca Vogue euh, ginnaaw bi nga xam ne jàpp daal dina fay dem fecc fa ba noppi daal di jël micro euh, daal di koy ñaan oto waaye nag daal di koy wax ni daal yaay sama papa yow ak Sidi Diop Wally Seck daal di koy tontu ne ko yow ak siidi Diop yëpp maay seen baay euh, mu jur polémique coow li bari lool alors dañuy dooree rek ci oto bi nga xamante ne jàpp ñaan na ko ko ak moment bi mu ko ñaanee ban jàngat nga ci def laataa ñoo ñëw ci dëkk. waaw balaa boobu di wax ne que nañu waaj 31 décembre bi. Baldi Faramaren fële ca Grand Théâtre donc ñu jëm ko ci 31 décembre bi di woo ñëpp nag Faramaren yëpp ci esplanade bu Grand Théâtre après numéro yi gars yi dañ def affiche yi ku ci bëgg a réserver table wala ticket wala lu mu mën di doon boo contacter Baye ak ñeneen ñi dinañ la jox ay tegtal yu wóor donc loolu du wax ma njàpp moo ko fi mujjee def ci kaw seen ndax jàpp naa ne ñi yéeg ci kaw seen waali di ko diis tiis lu mel noonu bëri na te képp ku ko ci wax mu fajal la sa soxla kon njàpp bu defee loolu daa def lu ko war toog na ay fan gisul baayam mu ne naa dem seeti sama baay ñëw na ci baayam baayam teral na ko ay xaritu baayam teral nañ ko ba pare yóbbante ko moom it ci ki nga xam ne doomu baayam la tam nekkat moom di feccat moom nga xam ne man mii sax baayam laa ndax rakki baay baay la donc may baay rakk ci waali te si waali di baay ci Sidi Diop donc man baay laa kon rakki baay baay waaw amuñu lenn loo xam ne luñ ci gis lu doy waar la. mais Wally Seck ko tontu li mu ko jàpp nga ni loolu loolu yoon la quand même parce que xam ne dafa déplacé wu romb ñëpp ndax Sénégal Wally rek du fi artiste am na yeneen artistes yoo xam ne ñoo fi nekk mais ni mu ko ñaanee oto ñu bëri li mu ko tontu dañu jàpp ni daf ko toroxal ndax la fait que mu ne ko xale nga yaa ngi si yoon sa patron mi ngi si yoon ak ton bi mu ko waxee ñu bëree bëri dañu jàpp que ni dafa toroxal njaam. yow ba nga dalee nekk aji ba léegi mos nga gis Wally toroxal kenn mosul am bëgg bëgg bëggam la ko wax ndaw la dafa nekk ci yoon di liggéey da koy ñaan yàlla ba ndaw yoon bi mu nekk di liggéey ba avancé ci ba gis ci boppam waxi oto bi ñëwagul de te xam ne waale moom dina ko def mais nag bëgg-bëggam la bu mu ko wax mu conseillé ko parce que bàyyam di Diop ba muy doog a ñëw loolu la ko waali conseillé woon ndaw nga te yaa ngi doog a door wax ko ko vidéo yaa ngi fi donc bu rakki boo xam ne bu bu rakkam ñëwee tamit ci kaw seen la waxoon taawam la koy wax rek mais loo bëgg moo ko ko. non non am yéen a ko def mais affaire bi garaawul de. Ah, déet déet le fait que mu taxaw ne ko yow yow xale nga yaa ngi ci yoon. le fait que mu mënoon ko wax loolu kay bàyyam Sidi lañ ko njëkk wax ca soirée bi mu ñëwoon. mais Sidi nga wax xam nga déglu ma rek mais njàpp dafa ñëw. baayam jox ko ay yóbbal fii ñun ñii suñu baay bu ñuy wax dañuy wax loolu ñun ñi ñëpp suñu baay wax nañu góor góorlu leen da ngeen xam ne ay ndaw ngeen. waa léegi moom baayam wax na ko loolu kay ngeen wuru ko ko wax ah wéy amul problème de euh, oto bi mu ko ñaan euh, li nga xamante ni jot na ko ci wax tontu nga ci euh, ñu ñëw ci kàddu yu nga xam ne Wally Seck wax na ko ko ne man maay sa baay Sidi Diop maay baayam te ku nekk xam na ni sii di Diop responsable la fa mu nekk am famille am ñu nga xam ne ñoo ko bëgg te itam di ko bàyyi xel ndax gisoon ne peut-être ak respect bi ko sii di Diop jox waroon na mën a yëkkati yeneen kàddu quand même waaye pa mu naan ko maay sa baay yow ak Sidi Diop maay seen baay. man rakk Wally la ah, nga Wally sama sama frère la nangu naa ko kay moom mag te sama jëwriñ la tamit comprendre nga kon man kay ma bàyyi Sidi la ah ba waaye du bàyyi rakki bàyyi rakki bàyyi du bàyyi magi bàyyi du bàyyi bàyyam la waaw waaw te moom doomu waali la man kay bàyyam la waaw loolu kay amul ngaaj mu koy neex mu koy naqari bàyyam la loolu faat na xanaa xamoo ne aji nit tudd na la ma wala benn affaire nit tudd nañ la ray xar def yëpp tuddin ba du jaar yoon ma ne nit tudd nañ la ray xar def yëpp tuddin ma du jaar yoon ngay dem di dem di dem ba yàlla defal la feex nga dajal benn nit bàyyoo ko mu ngénte wàlla rayal la xar nga doo doomoo ko waaw looloo ko dal ah moo ko wax de ñun waxuñu ko moo ñëw suñu kaw seen bàyyoo ñu ñu dooboo ko. yàgg na koo wax kay. waaw ah, léegi ku daan wax Omaro bàyyi ah Omaro la daan wax bàyyi te Omaro nee na Wally mooy bàyyam. kon moom moom sax sësët lañ ko war a def de normalement. gis ngeen aji il faut gars yi xam ne Wally du moroomu benn artiste fii ci réew mi benn du moroom benn artiste ci way du moroomu benn artist ci showbiz mm-hmm. te Wally showbizu de ñun ñooy showbiz. déet bu noonu sama benn xëy ci suba showbiz bi rek xajul ci seen label bi kon nañu réglé te it maa ngi leen di conseillé aji booy mi génn di def interview yi dañuy toog full lix di toog ci saal waaye toog ci mbeddat xar yi di rombat wala nga toog ci escalier xaw ma buntu duus nañuy xool fi ñuy toog ndax nañ jox importance ñi nga xam ne ñooy journalistes yi te xam ne vidéo àdduna dañ koy seetaan maa ngi seen booy def ay sorteer yooyu di toog ci ay mbeddat buntu kër gaat jonkan baat yooyu rafetul yéen amu fu ngeen defee interview amu leen fu ngeen recevoir les journalistes ah di tooñ ñi nga xamante ne nii que seen seen euh, petit cuisine la ñuy defee seen émission xam nga yow sama kër petit cuisine bi nga nekk nii de dugg ko ci saal bi. nañu rek mais euh, sa wax ji nga wax ni bu ñu ko déggee est ce que ñenn ñu duñu wax ni euh, maanaam yéen tout le temps da di suufeel suba teel ak ay artistes am waaye tout le temps da ngeen di indi xeebeel euh, ndax tey soo ne ñoom nañu toog fa rafet ak yi ni mel Wally Seck tamit jógee fële yëkkati beneen kàddu ñu bëri dañuy jàpp que ni da ngeen di minimiser. da ngeen da ngeen di soofatal waa suba teel. képp kuy faramareen mm. amul xol ak keñaan. Ah, non xaar dama lay expliqué rek képp ku rek képp kuy faramareen amul xol ak keñaan ñun yéene wuñ kenn lu bon déedéet yéene wuñ kenn xeebel tamit waaye nag ku ne xam na kuy sa baay te it képp koo xam ne yaa ngi yor micro fii ci réew mi nangul nga ne yow son excellence président Wally Seck mooy sa baay waa léegi mooy seen baay ci way mooy seen baay ci showbiz mooy seen baay ci lépp loo yaakaar rek yow hmm. ak lépp loo xam ne sénégalais yi koy seetaan yaakaar nañ ko waaw waa réponse bu gàcce la rek xam nga des fois da ngay toll foo xam ne lu toll ne sa bàyyi génn def discours amoo leen looy def lu woo suñ journaliste yi naa leen kaane dañu fubal ndax ma man a wax artiste day diiñ waaw dañuy waxtaan rek artiste day diiñ pourtant Pathé am na benn booy bu ndaw bu naan Pathé bi ko Wally doon may 800000 xaw ma pourtant xam nga noonu wax Wally bàlle la xam nga noonu wax la Wally fils Wally naan ko eh père loolu moo ci nekk. waaw mais déggoo ma de moom mu bañ ko moo am mu nangu ko moo am xam nga Youssou Ndour xam nañ baayam ak yaayam ndey soxna mu ba Iliman Ndour Wally Seck xam nañ baayam ak yaayam artistes yi ci des nañ ñu présenté seen waajur ndax dafa am solo artiste da ngay génne sa waajur wane ko nit ñi xam ko te dafa loolu dafa am solo ñun xamaguñu waayam baayam de ah xaw ma nan kii Silip Silip Diop mm-hmm. xaw ma ñu baayam artiste da ngay wane sa baay ñi nga xam ne yaa ngi leen bëggal di ay sénégalais bu ko defee bu nu gisee ni ah bàyyi silip jóob a ngi nii gis ñu bàyyam di xamuñu daal ñun xamuñu daa xees xamuñu yaayam tamit nu mel déggoo ma de ndey soxna mbuub daa nekk ci showbiz Elimane Ndour dafa nekk ci showbiz Mama Diaga dafa nekk ci showbiz nekkuñu ci mais seeni yaay seeni ñoom ñoo taxaw di ñaanal seeni doom niñ leen war a ñaanalee mbir nag bu fekkee ne dangaa nekk ci Sénégal gii di yëngu benn bis yi xanaa du ñàkk sax nga dem sa dëkk sa yaay génn ñaanal la ñu ne ah diwle am génn na ñaanal na ko baayam génn ñaanal ko. mais euh, sa waajur nga def ko quand même mais am na ñoo xamante ni. bëgguñu loolu mooy yoon. amul benn artiste buy nëbb waajuram. non non non bëri na artiste fi nekk te xamuñu seen waajur. artiste buy nëbb sa waajur rek doo dem artiste boo gis muy nëbb waajuram du dem parce que waajur gàllaaj ci showbiz bi nga nekk tey sax day day day tax yow yërmande bi xanaa amoo Sénégalais yi li ëpp yërmande bi ñu am ci waale ci Mama Diack la jóge waaw le fait muy toog di ñaanal doomam ba nga xam ni kii mu ngi ñaanal doomam at yéene tey yaay yu bari sax dañuy jàng ci ñaan yooyu maman jaaga di ñaanal doo doomam ñu ku ci sañoon sa doom ñëw comme ni maman jaaga def noonu ñaanalee ko sa doom waaw kon nag ginnaaw ñun xamuñu baayam at yooyu na jàpp ci waali mi at man jaan que du li ñu koy tëkkale ak Sidy Diop la mënul digérer maanaam looloo ko neexul moo tax mu bëgg créer leneen loo xamante ni peut-être sénégalais yi dinañ ci xëy di wax parce que ku mënti wax di nga wax Wally Seck ak Sidy Diop ngay wax fii benn artiste ñaar boo fi tudd ñoom ñaar lay doon quand même est-ce que du loolu la mënul digérer tax mu créer polémique bu mel nii. aji man damaa sol sangu solo woon nii doon naani café après ci laa jokkoo Dakar live pour ñu def émission bi waaye di tudd waal di tudd keneen ci musique bi bokkaale la. mënta ñàkk di ko tudd laa la wax. di tudd keneen bokkaale la ci showbiz bi ak keneen rek ci waykat yi xam nga tey jii mënoo toog fii naan ma ay silib Diop ay dëkkale silib Diop boo koy tëkkale da nga koy tëkkale euh, naajo xaw ma pompiteer kii Ibra naajo barke Serigne Bamba Ibra naajoo ko daaxaway waaye yow man xaw ma fu mu toll nekk sur le plan international jàmbaar la yàlla na ko yàlla defal jàmm ci li mu nekk mu avancé ci liggéey ci góorgóorlu ci waaye déglu ma rek oh, noonu dafa man lu may nangu non non man gisuma mën a woyam parce que du ko déglu ah, ah gis naa daal ku demoon ci concertu Sidiki jabate mhm. di way naan sinapeur bi ñëw na ménageur ñëw na yooyu daal gis naa ko fa mhm. à part boobu mosuma dégg ay woyam vraiment euh, gis nañu ah, ñëw ma koy dimbali di ko jox dépense yooyu su ma daan woy baara moom di xuma faay booy yi di ma ko yónnee Silip Diop laaj ko Mara Mara moo daan jël si dépense bi vidéo yëpp a ngi sama sinab de di toog sama kër gplay ma koy bëgg rey ñun ñëpp samay booy lañu woon booy mm-hmm. ñun ñëpp samay booy lañu woon mm-hmm. waaw seen bàyyi laa nañu rek d'accord alors ñu dem ci euh, soirée bi nga xam ne wàllu mujj na koo tëgg ca diwaanu Vogue ñu gis euh, njàpp mi nga xam ne euh, kàddu yi mu yëkkati woon mu créé polémique mu defaat ko ndax gis nañ ko mu demaat foofu nga xamante ni moom mooy Vogue fecc fa ñu gis nag faramaare nii yëkkati koppar bu takku ñenn ñi sax ñi ngi naan 4 millions ñenn ñi naan 3 millions ñu daal di ko koy jox ci koppar alors retouru njàpp encore ci biir ci biir Vogue. waaw loolu xam nga ne lancement la film bi ñëwagul. njàpp liñ ko defal ne xay loolu dara li gaa yi dese woon ay njëgu nekki di ko jox rek mais loolu dara aji bi ci kanam tuuti lay xam ñan ñooy Faramareen bu oto bi ñëwee ba mu xam ne oto bi ñëw na mhm. essence bi ñëw ba mu xam ne essence bi ñëw na chaque samde dimanche fu Wally di tëgg man maa koy jox kase personnel te du jóge ci xaalis Wally waaw dégg naa nag ci wewu bay dégg naa nag ci wewu bay ñu ni dàq nañ ko ndax moom dégg naa soo jógee foofu dem ci Wally rek la ba pare boleke la artiste bi day boleke waaw moom boo jógee fee rek mu wat sa bi lépp gis nga aji xam nga lan la waali rawee booy yi way nii xol bu rafet waali këram ñi muy àndal bokk am na ñoo xam ne seen jikko disul am na ñu baax am na ñu dëng am na ñu maanuwut am na ñu sob mais xoolal waali ñooñu ñëpp mu boole leen maîtriser leen te kenn ku ci nekk waali xam na sa jikko moo tax ngeen war a xam ne waali am na loo ko suñu borom jagleel aji li bootu ci ginnaaw waale dafa bëri te kenn ku ci nekk sa jikkoot moroom bokkul ñii dañuy siis ñii soxor nañ ñii ñaan nañ te waale bu maîtriser ñëpp ku nekk xam na li ngay def te ku nekk xam na ki ko waale moo la gën a xam ki ko bëgg ak ki koy moo la gën a xam ki ko bëgg ak ki koy bëgg te poos tax doful de xol bu rafet moo ko may loolu ndax bu sa xol rafetee da ngay mën a dëkk ñëpp aji da ngay mën a amal jàmm ñëpp yow Kër Waali boo fa demoon heure añ da ngay yéemu ñëpp groupe bi dañuy am na ñoo xam ne dañuy toog am na ñoo xam ne duñ toog taxaw nii sax pour xéwlu loolu lan moo ko gën a nekk euh, yaatal. no mais est bi yéen tamit yéen décembre bi ñëw non xam nga décembre bi daa ñëw. Mm-hmm. te njàpp amul ay yére yum solo yooyu kii joxu ko ay yére mu ni naa dem seeti sama baay yére moom tawul jàpp décembre bu ñëwee da ngaa war a xool ñi nga xam ne say employé lañ wala say ay xarit nga defal leen ay cadeau jox leen xaalis ñu dem jënd ay sañse ay yooyu noonu te moom defalu leen ko. defalu leen ko kay. yow aj yow xamoo moom. non faaw nga wax preuve bi xam nga man bëgguma nga ñëw toog fii rek di ma waxal di ma indil ay détails sans preuve. jàpp bëgg boo waxee ngeen di preuve. jàpp daal ñëw na démb jël si desitu ndékki yi gars yi dese woon seen poche yi ñu jox ko ko bu mu non non pas xëcc ñun duñ xëcc kenn gaa yi ñëw de yow da ngaa a gis kenn koo xam ne da ngay gis faramarin jàpp ci loxo nit indi ko amul loolu loolu mënuñu ko def ci suuf gaa yi ñooy xam ne fii la mbir mi ne ñu ñëwal fa seen bopp mi fi mu nekk gis nga ñoom Souleymane Awalaay gis nga gaa yëpp ay fay cekke lañ te tax dañoo xam ne mbir mi fii la hmm. waaw dañoo réeroon xam nga daal daal laaj bu daal laaj bu bari bu la mënee da ngay réer d'accord alors li nga xamante ni jot nañ koo def euh, ñu daal di koy nemmeeku moom jàpp ci kaw seen boobu ñu bari dañu jàpp que ni wala li ñu remarqué mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Wally li mu bëgg mooy jamono ji euh, récupérer kooku di njàpp alors est-ce que gis-gis boobu nga ci am non Wally bëggul récupérer déggoo mën a wax leen xale yi ñooy gis ne fii la ñu ñëwal seen bopp te bu jàpp ñëwee sax alhamdulilah dañ koy jël mu fecc ah. yenn saa yi sax papaam ëmadi xaw a dallu jox am déet mu nekk ab arma ci biir kii ci biir euh, scène bi ñaari booy yooyu arma at kii méngoo nañ buñ bu arma xaale fee kii xaale fii day neex am déet gisoo loolu yow. nga xam ne grand euh, nga xam ne euh, sunu baayam bii di ëmm di bajaan day dal waale ah mais loolu la waaw parce que il est temps ëmm di bajaan nag dafa def lu rëy ci Faramareen tey bu Faramareen yegsee fii Ramadan yegsee fii joué na ci rôle bu am solo ma ngi ma ngi noonu jox nu ko rôle nga ni. Amady Waly joxatu ko bopp de. xam nga tey ci yow ay. mais gis rek wax. non xam nga tey ji yow. Mhm. da fekk kër gi dallu ngay ñëw fëgg leen yee leen yow kan déglu ma rek yow loolu déggoo ko fen ah, dama ko remarqué. foo ko remarqué. ci kaw seen yow da ngay dem soirée. Ah, mais maa ngi toog di ko seetaan en direct. yow nga ko seetaanee. fan nga ko seetaanee. xanaa yow doo seetaan li xew ci kaw xanaa doo seetaan way bi waa wayu ndongoloo bi waali jël di ko wayaat Amady Badiane lu ñu mënti wax xam nañu ni jamono ji waali dafa favoriser Ndeye Ndiaye Bandaya Awa yaa mu teg ci wet gi bëgg a xëcc njàpp moom ci ginnaaw rek lay nekk kan mooy nekk ci ginnaaw non Amady c'est normal parce que ku daan def ba am ay employé ki ay doom yu ñëw di def ah da ngay may say doom war naa mën a taxaw ci kanam bu dee jox na ko gis muy taxaw ci kanam waale aji waa léegi Amady moo tey effacé wu def lu ko neex ñu dem ci euh, beneen actualité boo xamante ne yaakaar naa ni moom la ñuy tëjee Youssou Dieng euh, ginnaaw euh, kàddu yi nga xam ne jot na koo yëkkati ca Grand Théâtre la mu fa jot a wax wala Sorano bi nga xam ne moom la Titi doon def ak Thiat sekk gis nañu kàddu yi nga xam ne jot na ko faa yëkkati moom nee na yéen ñi nga xamante ni yéenay wax Wally sekk wax loowu leen yéen mën ngeen a toog weer bu mat sëkk te du ngeen gisante Wally sekk li ngeen di wax ci seen responsabilité la nekk. Aji Dakar ngeen duggoon ci seen compte di ngeen gis ay vidéo yu ma doon jël yow yow ma doon jël. nga may laaj ci lanu waali nga man la man du ma xaritu waali bokkuma staf bokkuma faramaareen lu ab soppe bu bëgg waali yàgg naa ko wax noonu bu ngeen xool seeni vidéo da ngeen koy gis man foofu laa ne ba léegi mosumaa toog ci télé ne man waali damaa bokk ci staff am wala waali damaa bokk ci lii wala waali damaa bokk ci lii déedéet xam nga ci lan laa bokk ci moom xol bi mooy bëgg ko jox ko ko moom it mu delloo ma ko loolu rek moo amoon solo Youssou Dieng nag ku baax la référence la royuwaay la te it école la moom day jàngale ndax bu waxee rek ñu bëri mën nañ cee jàngat lu bëri donc kon lu mu wax rek moom moom la soog waaye daal li ma lay xamal mooy ah, maîtresse lañ koy wax xawma dafa war di jàngale te it ca loolu la nekk ndax ñu bëri dañ koo naw ci li muy def man nag sama grand la sama lépp la am na droit jël yet fekk ma ma toog mu dóor ma ndax sama mag la mais sant yàlla dégg li mu wax moom da leen a tuutal te tax na sax am na ñoo xamante ni ñu ngi commencé di leen xeeb euh, seen noon yi sax ñu ngi commencé ñoom di jubile naan kon li ngeen di wax lépp Wally Seck tegu leen fenn te loolu yëpp ci su ci Youssou Dieng la jóge bu ñu Wally teg fenn waaye ñun nañ ko teg fenn hmm. waaw ñun bu ñu Wally man bokk bu ma Wally teg fen mais man teg naa ko fenn looloo am solo aji Youssou Dieng ku baax la sunu grand la déggoo ma ne la bu ma am na droit gis ay rakkam wax ay rakkam lu ko neex ci internet bi wala bu ko neexee sax ñëw fekk ma may def émission mu jël jat dóor ma sama frère la ku baax la nit ku baax la est-ce que wax jooju xam ngeen tey euh, mën na tax maanaam ñi leen nawoon jàpp ni tey peut-être am ngeen accès si Wally parce que li mu wax mooy yéen amoo leen accès si Wally da ngeen di wax Wally Seck yónniwu leen Wally du leen gis Wally du leen sax dégg mën na toog weeru yàlla te tudd na sa tur parce que bañ ko laajee délégué Amar ak ku mel ni soxna Aïda Saliou dane leen gis sax waaw loolu moom dëgg la moom ndax man Wally trois mois ngi nii gisuma ko loxol loxo mooy daju saraxu moom yi laa ko gëju nuyu loxol loxo parce que xamul lu tax man nag awma jotu di dem kër kenn waaye nag bu ma ko nammee am naa sañ-sañu taal sama oto dem këram seeti ko siyaare ko at soxnaam ñibbiwaat lu ma ah, dakaaru ba dakaaru daj aj mën naa leen may ngeen wër fan la Modou Amar di fréquenté amul man doo dox fenn ba fekk ma ma taxaw ci mbedd di toog wala nanga ma nanga awma loolu sama kër laa xam kër seex Amar ak kër Waale awma fréquentation soo may rëbb doo ma jàpp benn yoon ci mbedd bi comprendre nga kon ay jege nañ waaleet jege nangamat loolu amul sens xam nga lu am solo mm-hmm. suñu xol yi buñ ko xaree nañ ci fekk sëñ Tuubaa mm-hmm. man foofu la ne mm-hmm. tey it waale xam ne cër bi ma ko jox te xam ne fi ma ko teg moom la waaye kuy dem soirée di dem concert di nga xam ne waale jox na cër mu damal waaw maar waale du ay 2016 du ay 2000 nangam yi de maar waale dañoo yàgg de aji man bokkuma ci waali tey yi de wala gars yi dañoo defee man ci wàllu tey laa bokk. loolu lañ foofu de li ñu waxee moom dafa mel ci wàllu tey déggoo li ma la wax képp ku koy wax loolu day wax lu ko neex man bokkuma ci wàllu tey hmm. waaw. yow bokkoo ci ñi nga xam ne dañuy woo waali mu leen di rejeté. ak di leen man du ma ko waali bu ma ko woowee lu ma koy doyee. wala da ko mënul jot rek. lan laa koy doyee bu ma ko woowee léegi wax ma lan laay doyee waali yow. du ñàkk lu ma koy doyee. lan laa koy doyee aw ma lan xanaa ma am contrat boo xam ne ay nit ñoo ko bëgg a tëgg ma woo ko te daf may jël waaw bu sonee benn yoon jëlut dafa jàpp te bu paree daf may rappelé ma wax ko soxla gars yi pare ci mu ne ma indi leen sama kër ma yóbbu leen seen kër ah, loolu la léegi bu ma woowee waale lan laa koy wax lan laa koy wax koo xam ne bu ma ko bëggee gis man naa dem këram toog xaar ko fekk ko moom ngeen toog semaine doole kër Waly Seck kër Cheikh Amar sunu borom daa dogal ne aw ma fa fenn sens interdit fu ma neex dugg parce que ñoom xam nañ man ki ma doon man tamit xam naa man ñoo man xam naa ñoom ñi ñu doon parce que dama leen bëgg bañ yëg ni dama leen a bëgg ñoom it ñu delloo ma cër boobu kon kay ay duggal yooyu aji amul sens waaw. est-ce que buzz bi ngeen nangu ci ñoom moo tax ñu mer parce que ku nekk xam na ni Youssou Dieng da daan génn di def déclaration di wax si Wally Seck ak mel mais gis nañu ni léegi délégué Amar rek mooy génn ak ay rakkam. yàgg naa génn da nga naan da nga naan élève délégué Amar yi. la nga naan élèves yi man man ah gis nga leen ñoom sëñ Bakke mm. gaa hmm? léegi léegi léegi tamit idaali sax gis nga ko léegi day kaas fan naa moom. non sëñ Bakke jumeau yeet booy yëpp léegi ñu ngi génn kon ñooñu samay la lañu. aji nga nekk ci dara. waa déglu rek man nga nekk ci dara. Ah. ba muy metti laa la wax nga nekk ci. Mhm. lu kenn amuloon fit wi nga koy def yow kese. ngay doxa doxa dox ba deux mille deux mille vingt trois ñu nekk wala deux mille vingt deux deux mille vingt trois nga am ci ñoo xam ne tey ña ngi koy def te ci yow lañ ko jàggee loolu fierté la. yi yow yàgg nga nekk ci kii am nay temps bu ko daan wax kaay wax ci waale du ko ñeme wala bu waa Jamra Moussa noonu génn di attaqué waale da ngay gis ku génn tontu ko daan gis ma ngi noonu. foofu laa ne tey am naa ay élèves yoo xam ne ñu ngi foofu tey ba ku laal waale rek da ngay seetlu sax fan yi bu laalee waale damay yéex a génn. parce que damay toog xool sama élèves yi seen seen seen seen ñu ñëw ma xool li li seen seen kii nu ñu koy waxatee seen matik matik matik waaw xool lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu war a risque mm-hmm. risque lañu ah, ñu xool ko voilà ma xool su fekkee nag jaar na yoon man yi jaar na yoon bu fekkee nag jaaru yoon ma woo ne ko boy su ëllëgee communication bi dee ko defee nii bul tudd tur del junj nit ñi xam ne kii ngay waxal parce que diffamation dafa gaaw donte amul peine sax duñ la ci tëj waaye da ay dañ lay kii rek ay ndam la yooyu ni may voilà mais mais li tax nga nga yéex a génn ñu bëri dañu jàpp ni euh, peut-être délégué fi mu tolloon tollatu fa maanaam bës bi nga amoon fit bi nga amoon di wax gaynde gi nekkoon ci léeg mais daal léegi dañ gis ni euh, gaynde law boo xam ne dafa soppaliku muus nga baal ma ci kàddu gi loolu mooy li nga xam ne moom la sénégalais yi remarqué quand même est fit bi nga amoon moo wàññi ba nga gis ma sama kanam gis nga ci ragal hmm. yow moom boo tudd gis nga xam wax ci réew mi fii di way dàmbalee ko ci Silip Diop ba ci yeneen booy yëpp Silip Diop taxawal rek amul kenn koo ciy fëgg ne ko kaay délégué ñàkk na fit mu gëm la boo koo fëgg ne ko ndax délégué ñàkk na fit dalaan la kooku day gën xëy di gën a am fit man fit man sëñ Tuubaa ko def ci man ma bokkat moom ko njaareem njaareem kenn du fa dëkk di ragal benn mooy sañ-sañ bi mooy dëggu aji boo dëggoo rek kenn du la yab te man lépp lu may def ci dëggu laa koy def du ma tooñ waaye nag ku laal waale Cheikh Amar ak Doro Gueye PDG Xipil xool jot sama jikko foofu laa ne. jàpp ne ñemewu da nga ragal léegi moo tax tontu woo Youssou de lu bëri loolu lañ ko. ku ma ragal. Youssou de waaye Youssou mooy tonto Youssou di sama frère. Youssou lim leen wax waaye non non non non bàyyi leen loolu waxul dara Youssou sama frère la. am na droit waaw déedéet kon keneen moo ko wax biir Faramareen ko tontu. non non non non Faramareen nag kaay ma wax la ah. bu fekkee ne dafa am ñu nekk ci biir di ŋàññ Moodu Amar Moodu Amar génn di tontu sama bëggeel ci waali daa des non no no du ma leen tontu king bi moo ma amal solo muy waale yii ñëpp amuluñ ma solo. dégg ko intéressé wuñ ma man place jéem ma ko faa jéem ma ko fa am bu ma ko fa bëggoon suba suba wala tey fii aji ma woo waale ne ko damaa bëgg place euh, Faramareen te daf ma koy jox mais bëgguma ko loolu laa koy doy ñaata at maa ngi topp waale musu musuma ma ko wax waxi ay place wala dara te xam na ne man bëgguma place li ma bëgg mooy mu am jàmm. kon ñoom seen place la jamono ji moo tax ñu lay attaqué. kan la. non bàyyil yoolu Youssou Dieng ku baax la mu ngi liggéey at waali yàlla na ko ci yàlla jàppale bàyyi leen loolu aji Youssou non non non Youssou sama frère la Youssou sama frère la nit ku baax la ah. alors mbégte la woon délégué ñu ngi lay sant di la remercier bàyyi la nga tàggu internet yi la doon topp. ci waaw di leen jox rendez-vous ah Gambie incha allah après ñëwaat Dakar le 31 décembre toj ko su ma jumul artiste bi moom à partir le 16 moom lay occupé ndax. affaire yi xat na ci moom lool jamono ji ñu ngi ñaan yàlla nag suñu borom gën koo yokk taw feex ba kàttanal ko dooleel ko rek moom nay am jàmm rek moom buy am jàmm ñun ñu ñu ñàkk am jàmm sax baax na kan ci kuy kooku Sidi Diop Sidi Diop jàpp ñu ko di daa nekk ci aar bi de way taxamul dara rek de jàpp ñu ko de daa mun tawee rek xam nga 100000 bi mu defaree woon bëñam bi na ko fay ah jërëjëf. ça jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal mbégte la woon feggoog délégué Amar Jotaay ñu jàpp ni nag kàddu yi nga xam ne eh, jot nañ koo sekk amal na leen solo bu baax di ko remercier ci woyofte bi saa su nekk yéen itam sant leen jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne saa su nekk rek da ngeen di topp ak bégg Dakar live jox leen rendez-vous à beneen daje bu may dajeeg yéen jaa ngeen jëf.